asalaamaaleykum mbokki Sénégal asalaamaaleykum mbokki waa diaspora asalaamaaleykum sunu mbokk internet yi man sen talibé sen mbokk sénégalais sen xarit sen soppe Soya Diagne ma dellu si fii tey di waxtaan ak yéen waxtaan wi nag. doon na gën a neex bu fekkoon ni tey yàlla sunu boroom dogalul mbas mi dal sunu kaw dal ci kaw réew mi dinañ doon gën a neex su fekkoon ni tey am nañu sunu liberté dem ak dikk comme nañu ko doon amee doon na gën a neex su ma leen mënoon a invité kenn ku ci nekk ci yéen pour que nga ñëw visiter studio D221 bi

yoo xamante ni journal télévisé lay nekk pour le web et dinañ ko def quatre fois dans la journée et dinañu ko aussi euh, fësal ci ay brève ba nga xamante ni lépp luy xew-xew bi am ci Covid 19 bi euh, bu soobee yàlla dina leen fekk moo xam ndax téléphone portable nga yor di ko utiliser dina la fekk ci sa téléphone. moo xam ndax ordinateur nga yor dina la fekk ci sa biir ordinateur ñu ngi tàllal sunu loxo encore une fois de plus sénégalais yi di leen ñaan euh, mbir mi ñu def ko seen mbiru bopp def ko seen yëfu bopp jàpp ci euh, bu ko defee li nga xamante ni moom la ñu bëgg euh, mooy sunu sabab di sunu mbébét mooy la vraie information aux sénégalais loolu nag dañuy yaakaar ci yéen ngeen jàpp ci rek incha allahu rabbi bu ñu ko defee eh, yàlla sunu borom danañu yóbbu ci fi nga xamante ni fa la ñu bëgg a dem. mais profito également ci occasion bi di remercier les partenaires yi nga xamante ni euh, ils ont eu confiance en nous euh, di remercier aussi le personnel bi nga xamante ni tey mi ngi fii boobu ba léegi bàyyiwul ngi xëy di daw di dóor ku nekk di def sa doole ku nekk di def sa xam-xam ba yàlla sunu borom taxawal lii lii nag euh, mbiru sénégalais yëpp la dañuy ñaan yàlla moom mi nga xamante lu sotti moo ko sottal na projet bi ci projet yi nga xamante ni ni ko ak euh, di ñaan di aussi participation ba bëgg ci le Dakarois 221 yàlla sunu borom defal ñu ko asalaamualeykum wa rahmatullah taala wa barakaatu jumaa mubarak merci